ginnaaw victoire bu yaatu bi nga xam ne amoon na ko ci Ukraine ay semaine ngi nii Real Madrid daanati na Shakhtar Donetsk waaye bi yoon ci match bu gënoon saf ñaari bal ci benn duo Benzema Vinicius ñoom ñoo làqar ci euh, situation bi attaquant français bi dugal ab doublé daal di dugg ci taarixu Ligue des Champions ndax tax na ba Real Madrid doon club bi njëkk a dépassé baaru 1000 buts yu nga xam ne dugal nañ ko ci Champions League Inter de millan moom ci wàllam daal nay profito ci double confrontation mag Moldave yu Sheriff Tiraspol yi ngir relancer wu bu baax a baax ci poule bi ginnaaw bi ñu daanee ñetti bal ci benn Nerazzurri yi jamono ji ñoom ñoo jeetu Sheriff ba tax ñu jël deuxième place bi Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye moom dafa mujje témboo ak Leipzig 2-2 allemand yi arraché match nul bi ci arrêt de jeu seconde période bi ci ak penalty bu ñu dugal la Abdou Diallo football match bi wuuteeg loolu naataangoom bi Degane Gueye nekkoon titulaire football match bi ba mu jeex Manchester City moom profito euh, ci match nul Paris Saint-Germain boobu ngir jalaat première place poule A bi ginnaaw bi ñu daanee daanu yu yaatu ta metti club Bruges ñeenti bal ci benn ci classement bi parisien yi am huit poñ mancunien yi am neuf poñ daanaka li leen dese ñu qualifié huitième de ñoom ñaar bareetul mu des nag kuy jël place bu njëkk bi daañu jongante ñoom ñaar fii ak ñett ci ay bës ci ay Etihad Stadium Sadio Mané moom waneeti boppam ak but bu mu dugalati ci ndam lu Liverpool am ci kaw Atlético Madrid ñaari bal ci dara ak but bile attaquant sénégalais bi doon léegi ñetteeli meilleur buteur bu Liverpool ci Champions League ak 23 buts nekk ci ginnaaw Steven Gerrard ak égyptien bi di Mohamed Salah. ci beneen rencontre poule bi AC Milan ak Porto ah, dañoo tembo ndam demul ndam dikkul ci San Siro un bi partout ñu jeexale ak groupe C bi nga xam ne jot nañu jox ñaari match yu neex te bëri ay but Ajax Amsterdam dem fekk Borussia Dortmund ci Allemagne daan ko ñetti bal ci benn jamono jooju Sporting Portugal daal di nappaaje Besiktas daan ko ñeenti bal ci dara mu doon ay résultats yu baax ci Ajax ak Sporting Portugal ndax euh, ñi nga xam ne ñoo di bataab yu Ajax yi ñoom ñooy premier qualifié ba noppi ak 12 points portugais yi am 6 points léegi daal di ñëw tolloo ak waa Borussia Dortmund waaye des ci troisième place bi ak différence de but particulière bi